leen jàmm yéen ñuy seetaan ci sunu Buzz TV HD te di ñu bàyyi xel tey nag ñu am ki nga xamante ni mooy sëñ Ibrahima Gueye Nayler euh, ñu fas yéene waxtaane lu baree baree bari mbirum Ousmane Sonko fas yéene waxtaane coow yi nga xamante ni tamit ñu ngi koy dégg ku mel ni ma Madiambal Diagne fas yéene waxtaane tamit si xew-xew yu baree baree bari yi nga xamante ni am na euh, euh, ki nga xamante ni mooy Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax fii ci sunu Buzz TV ñu dugg ci laaj yi. Ah, waaleykum sunu bës TV ñu ngi leen di nuyu. di nuyu waa Sénégal yëpp. di leen sant di rafetlu taxawaay bi di rafetlu itam si liggéey bu am solo bi ngeen di liggéey ci informer askan wi. ak it lépp lu xew ci réew mi mu di seen yitte ji ngeen di ndaw ñu am gis-gis ci réew mi. di seen taxawaay ci eh, réew mi am solo trop ndax wax dëgg yàlla bu fekkoon ne nekkul ak yéen ñi nga xam ne nii yéen a yor média euh, média en ligne bi. Mm-hmm. presse en ligne bi. Euh, askan wi lu bëree bëri duñ ko xam. Mhm. waaye euh, heureusement bi nga xamee ni am na ndaw ñu xam ne seen taxawaay ci réew mi faw ñu taxaw jël seen responsabilité. ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm. Mhm. di leen encouragé bu baax den leen xamal ne. Mhm. maam am réew moom waa réew maa koy liggéey. kon nag ndaw ñi ginnaaw yéen ci média bi yéen a ngi ci jàpp seen loxo ñu ngi leen sant. waaw fi ñuy dooree mooy Mame Mbaye Niang lañ koy wax nekk ci Macky nee na Macky moom dafa war a am troisième mandat ndax kat loi bi moo ko may ban gis nga ci am. ah jërëjëf maa ngi leen nuyu di nuyu. mbokk yi. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, Sénégal yëpp. Mm-hmm. Oh, loolu moom su ma sañoon sax wax dëgg yàlla du ma ci wax waaye da di politique moom eh, loo bàyyi mu jàll rek mën na indi ay problème ci biir mën na la indil tam eh, jafe-jafe ñun sax yàgg nañoo xam ñoom seen i bëgg-bëgg ak seeni wax waaye am na ci yoo xam ne foofu faw am ñu leen di tontu ginnaaw ñoom dañuy jël loo xam ne nii. Euh, du njariñool askan wi di seeni intérêt di lëndëmal askan wi dana baax lool ci ñu mel ni ñu di walbatiku di leen tontu di leeral askan wi ñoom seeni seeni seeni seeni pexe loolu moo tax bi maam mbay ñan génnee di wax ne président Macky Sall yoon may na ko mu am troisième mandat loolu man su ma ki yoon sax euh, waruma ci woon wax waaye nag daf ni moom dafa am lu mu waxoon moom Mame Mbaye Niang te ñu classé ko ci ñi nga xam ne rek mooy ñi wër Macky sàll ba Macky sàll dugg ci guta gi nga xam ne askan wi sanctionné nañ ko Mame Mbaye Niang daf ciy bokk moom sax mën naa ne mooy moo gën a yàqal Macky Sall ndax ba mu duggee ci euh, tunnel yi ba tey kenn dégg ko mu làqu feeñatul kenn déggatul Mame Mbaye Niang kenn gisatu ko loolu nag xam naa dafa bëgg a génn ne man maa ngi fi ba tey moo tax mu génn naan yàlla su Macky président Macky Sall war naa am troisième mandat wala yoon may na ko ko yooyu mais ñoom dañ koy xamal ne ko moom Mame Mbaye moom dafa taxawoon weddi woon ne Macky Sall moom bu laajee troisième mandat du ko jàppale ndax loolu yoon mayu ko ko waxoon na ko fi kon nag bu ñëwaatee tey waxaat lii dañ koy jàppe ni ñiy wër Macky Sall di ko dugal ci loo xam ne nii day dugal réew mi ci ay situation yoo xam ne nii baaxul kon Mame Mbaye ñu xamal ko rek ne ko moom miy wax waxi troisième mandat ak ñemeel ni même ñi mel ni moom ay ñoom Ablaye Sow ay ñoom Mm, kii kii Ndoye maître Doudou Ndoye soi-disant maître Doudou Ndoye soi-disant sax laay wax donc am na maître yoo xam ne ñoom bu bu bu ñu xamoon lii la def seen diplôme sax duñ ko am ku ci mel ni maître Doudou Ndoye di bett sénégalais yi décevoir sénégalais yi en tant que dem ba nekk avocat ñu am ci yow yaakaar ne yow fu dëgg taxaw da nga féeteg dëgg ngay walbatiku di wax waxi troisième mandat Macky Sall war na ko am loolu mm, ñu koy ñaawlu di xamal itam ñoom ñi nga xam ne ñëw wër Macky Sall ak di euh, mooy antrasam ñu koy wax naan ko man naa am troisième mandat ñoom sañ nañ ko wax ñeme nañ ko wax mais ki ko ñemewut a wax moom mooy président Macky Sall président Macky Sall moom moom ñemewul taxaw ne yoon may na ma ma am troisième moom da ko ñemewut ndax li ci des bëriwut te la ma ko waxoon rek la ma tegoon ci taabal ji rek laay tegaat ci taabal ji moom daal bu fekkee ne moom am na ne yoon may na ko wala na wax ne bëgg naa rek. moom bu ko Marème Faye Sall joxoon troisième du ko naan. président Macky Sall. bu ko Marème Faye Sall joxe ëwal dina naan. bu ko joxee deuxième dina naan waaye troisième du ko naan maa la wax lii. ataaya moom ataaya moom lu ku ne mën naa naan at troisième ci senegal ba mu des Macky Sall du ko naan. nit nag li ñan mën nañoo jay jay mm, ginaar ba muy mbëkke Macky Sall du ko ci fekk du mës a mbëkke troisième mandat du ko mas a wax ñoom ñi koy jayet naan ko man naa am troisième mandat di ko dugal ci loo xam ne nii réew mi mën naa dugg ci catastrophe tey ci tey bu ñu dugaloon Macky ba Macky Sall dugg ci mbiram troisième mandat ba réew mi nekk ci situation ñoom dañuy daw ñoom ñëppay daw dugg ci tunnel yi ñii dañuy daw dem ci seen ginnaaw jabar làqatu ñii waddoo ay sër ñii soli tay baas koo ci gis doo xam ne góor la ñëppay daw ñi mën na ñoo taxaw ak moment bii de ne Macky Sall ñi mën a am troisième mandat mais buñ buñ dawoon ba ba askan wi di ja jaamaarloog Macky Sall ci troisième mandat muy Mame Mbaye Niang muy abdu mbaw muy ñoom ñépp dañuy daw bàyyi Macky Sall ci mu toog te du ci génn ndax troisième mandat day jaay prix la am prix cent personne mortes par jour su laajee troisième mandat yàlla tere yàlla bu am mën naa am Sénégal kon nag Macky Sall du ci dugg su ma doon moom nag benn conseiller lay am waxoon naa ko waxati ko na def Marème Faye Sall conseiller am ak Amadou Sall. ñoom ñooy ay ñoo ko bëgg ñoo dul bàyyi mu dugg ci yeneen yi mais Alioune Sall sax bu ko déglu ndax Alioune Sall géejawaay dégg ngeen si mu dem ci benn gàmmu ñaanalal ñaanal ñu am troisième leen déglu nay déglu doomam ak jabaram ay Youssou Ndour ak Strone yooyu mu ci déglu kenn personne na jël ay responsabilités ci réew mi te xam ne réew mii luñ mayutoon Abdoulaye Wade duñ ko ko may foofu nag la yem ci mbay Mame Mbaye Niang di ko xamal ne ko nag euh, ñun. fi ñu nekkoon démb fa lañ nekk démocratie respecter suñu calendrier euh, euh, électoral bi ba pare respecter suñu institution yi ak suñu constitution bi lañ mbax Macky Sall tous à ma constitution. ok mhm. jërëjëf. Madiambal euh, la ñuy la ñuy dem mu wax di tagg ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ci loo xamante ni daaw ko am ndax am nañ problème boo xam ne amoon na fi ba Sonko wax sax daal ne ku ñuul ki ba gars di ko reetaan tey nag mu dikk ni day tagg Sonko ba naan ko Macky Sall na moytu Sonko loolu ban gis-gis nga ci am. waaw jërëjëf comme la ma waxoon rek laay waxaat dañoo nekk ci ré maanaam réew mu doy waar ñu doon am doon maanaam peuple bu spécial ci soi-disant kilifa yoo xam ne ni wala ay ñiñ ay kilifa lañ muy li mu mel ci senegal melu ko ci benn réew ba tax na. nit nga gis ko tey gis ko suba xam ne même personne bi nga gisoon day jafe ci seeni propos ak seeni at ak seen lépp boo gisee dix sénégalais yoo gis mën naa ni jàppal ne neuf yëpp foo la wala huit yëpp foo lañ euh, ku mel ni ma Madiambal Diagne bu taxawee fii yekk Macky Sall lu le wax ko Macky Sall ci lu bon ci lu ñaaw ci lu ci lu ci loo xam ne nii nit mosu koy wax ab xaritam mosu ko wax koo xam ne ab citoyen nga wax na ko Macky Sall kon nag tey bu demee ba Macky Sall nekk président de la république mu xëy ànd ak Macky Sall di ko wax lu baax di ko wax lu baax di ko wax lu baax ba dernier moment mu xam ne Macky Sall mu ngi ci troisième mandat kam mu daan mu encore mu daan wax mag Ousmane Sonko di ko yàq loo xam ne nii kenn mosu koo gis ci dem na ba daan dugg ci ay famille famille dem bay dugg ci voisom dem ba commencé jaxase diggante euh, euh, Casamance ak ak ak ak ak euh, Sénégal yi ak Ousmane Sonko ci wàllu maanaam ethnicisme kon nag bu ñu demee ba tey ñu xam ne Macky Sall mu ngi ci dernier mandaam un an de sa de ko ci mu commencé walbati ko di attaqué Macky Sall encore di di encouragé Macky Sall di Ousmane Sonko di favoriser Ousmane Sonko ci jëm ay wax joo xam ne day niru wax ju baax ñun dañuy xam mooy kan ndax dañ koo xamoon démb. xam ko tey te am xam yéeneem ëllëg mooy jikki jikkoy weñ weñ mooy fu tooy nga dal moom mooy jikkoy ma jëmbal jaañ moom jikko musta baax ku mas a gis daan ni mu daan farewoo ci murid sax bañ na ko ba ci maanaam lépp lu xeetoog diine ma jëmbal jaañ bokk na ci ñu ko daan xeex ci wàllu daara yeeg wàllu mm, alxuraan ak wàllu imaam yeeg lépp lu baax daal ma jëmbal jaañ da koy bon lu kon nag moom bu balbati ko taxaw bëgg mel ni koy jàppale Ousmane Sonko dafa jàpp ne ñun waa ñun Pastef ak sénégalais ak patriotes yi nga xam ne nii xam nañ liñ bëgg xam fi ñu jëmee Sénégal kooku dañuy jàpp rek na la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innal munafiquna la kaadibuuna dañ koy xamal ne sénégalais yi ma jëmbal jaañ mi ab day kàcc li muy wax ndax yonent naa naafeq yi jamono yi sallallahu alayhi wa dañoo ñëw ci Seydina Muhammad ne ko yaa yón ko idaa jaakal munafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullah yow yonent yàlla bi de seere nañu yàlla la yoon ni ndeke booba ay naaféq lañ dañuy kàcc waaye yàlla suñu borom wàcceb aaya ci alquran wax ko sayyidina Muhammad ne ko innal munaafiquuna la kaasibuuna yéefar yoo naaféq yooyu de dañuy kàcc moom ci la ñuy jàppee ma jambal yoo xam ci gëmuñ ci dara moom la engagé moom Macky Ousmane Sonko Macky Sall moom moom la engagé mais ñun fañ ko jàppe woon dem fa lañ ko jàppee jàppuñ ko patriote jàppuñ ko am nit ku am dignité jàppuñ ko nit wax ko tu dëgg ndax la ko Ousmane la Ousmane Sonko waxoon rek ne am na ci réew mi ñoo xam ne dañoo fen ba ñuul te yàlla dogal boo doon seet Sénégal yi ñi ci gën a ñuul ma jambal jaan ci lay bokk kon nag ñun foofu la ñeem ak moom rek wasalaam. magi nekk loo xamante ni Ousmane Sonko lancé na ko gis nañ xale yi bari woon ci moom lool mu jékki jay xalaat ni kat war naa indiwaat mag ñi ba gis nañ lim fi defoon jamono ji jàll ban xalaat ngay am ci mag magi Pastef ak lan nga yaakaar ni moo tax Sonko indi ko. Euh, ma ñëwaat tuuti foofu ci wax ji tam euh, wax ma jëmbal jaañ boobu ñan ci euh, ñuul jubluma ci nit ku ñuul baaxul waaye xol bu ñuul la ñuy wax ñuul bind la der la bu yàlla bind muy muy du am njariñ am am am ay yàgg am ay valeur muy nit ku ñuul der bu ñuul mais bu ñuy ñuul xol bu ñuul la tax ñuy wax ndax nit ku xol bi ni mu mel rek day feeñ ci ay jëfam kon nag buñ ne maanaam fen fen ba ñuul kukk mooy nit ki day fen a fen ba am xolam ñuul kukk nga xam ne dootu mën a wax lu baax euh, comme mu ñëwaat ci laaj bi nga laaj ñu nga ne ci magu Pastef ñi ci parti bi fan yi ñu leen defal lancement seen mouvement boo xam ne nii parti bi amu ci woon te yàlla dogal semaine passée ñu lancé ko officialisé ko fii ci euh, Dakar ci kanam président Ousmane Sonko ñu koy rafet lu baax loolu la ñuy wax politique autrement moom la Pastef indi politique autrement mooy la fi xamoon ci politique moom la ñëw indi ci xar-xanam gu bees indi ci jëf yu bees indi ci xalaat yu bees muy lan dafa xam ne comme ni mu ko waxee mat mat naa ba cim réew ndax gone dina toog du du seen du seen dara dana taxaw di si du seen dara mag toog seen lu sore sore sore sore moo tax mu xam ne parti bi war naa am ay mat ñoo xam ne ni fépp fu parti bi naree teg foo xam ne ni ñoom seeni expérience wala seen xam-xam yéegu fa wala gisuñ koon ci politique mag ñooñu leeral ko moo tax mu jël ay mouvement bu ñuy wax mouvement magu Pastef intégré ko ci biir parti bi ñu koy rafetlu lool muy ay xalaat yu yu Sénégalais yëpp rafetlu te it mag mën naa bàccim réew bu ñu koy wax mooy mag mu baax waaye am na mag ñoo xam ne moom waxuma la bàccim réew mooy golo ci lool golo ci golo ci tool sax leen gën am na mag ñoo xam ne moom golo ci tool moo leen gën cim réew mag ñuy nag yàlla nañu ci yàlla musal mooy ñi nga xam ne nii fépp fu ñu fekk luy ja jaxase Sénégal wala ay wala lu yàqal euh, ab kii ñoo koy def moom ci la bokk. Oh, kon nag ñu ngay ñaan yàlla mag ñi nga xam ne ñoo dugg ci parti bi doon mag ñu baax di mag ñu am gis-gis di ci euh, di leen encouragé di leen wax ne parti baa ngi noonu seen parti la réew maa ngi noonu réew la bu baaxee. seeni doom la bu baaxee seen njaboot la kon nag réew maa ngi doon yéen mag yi seen magi Pastef mhm. yàlla na leen yàlla may ndam mhm. ci li ngeen dugg ci parti bi yàlla na ci parti bi gis boppam Sénégal gis yi boppam mhm. jërëjëf plan liquidé a jaare mooy Sonko dafay def sax moom yarama tàng wàcce na ko ba septembre te ñu bare ñu ngi faral di wax ni jamono boobu la ko Macky la bëgg a defee ndax dafa jekki bëgg a jekki-jekki rek daani Sonko dafa indi mbooloo wala dafa def dara bëggoon nañ sa gis foofu ci plan liquidité Ousmane Sonko. ah jërëjëf euh, yooyu itam mooy question yi nga xam ne man suma ma sañoon du ma ci wax ndax. Hmm. liquidité Ousmane Sonko moom ci la Macky Sall ba mu doonee président ba tey moom mooy bëgg-bëggam. kon nag bu ñu taxawee ba léegi ñu naan daa nekk plan pour liquider Ousmane Sonko day mel ni tàngal tàngal tàngalaat tàngal mbaxal waaye moom ba mu doonee président ba tey 2014 la rajo Ousmane la jël la jël la jël 2014 la ko raje 2012 la nekk président mu mel ni ñaari at la tàmbali dugg ci Ousmane Sonko di ko jéem a liquider kon kay su ndikkee ba tey ñu naan da koy jéem a day mel ni ñun xamuñ Macky Sall mañ xamuñ démb Macky Sall fu mu masa toog ci luy maanaam liquider Ousmane Sonko mooy bëgg-bëggam waaye yàlla moo ko nanguwut askanu senegal te la fi nekkoon démb yàlla ma doon bañ démb ba tey mooy yàlla askanu Sénégal waroon bañ démb askanu Sénégal waroon bañ démb ba tey moo fi nekk te dafa gën a sax yokk ndax lan mooy ndaw ñi gën nañoo xam Ousmane Sonko gën nañoo xam projet Pastef kon nag nangu lu ñu nanguwutoon démb tey lañ koy gën a bañ.